ci ben temps d'entête bu mu amoon ci ministère de l'éducation mais bi ñu koy reconnaître al mooy waxoon na ni transport xam na ni doxul dafa désarticulé waxe ko ci noo xamante ni ñun sax duñ ko ni waxé limu mu di deug ñu entretien moom waaye loolu bi mu amee ñun en tant qu'acteur dañu mas wax état nga évaluer limu mu def ci secteur bi xool impact pour xol ba xam doxna wala doxul

C'est fait état bi réflexion depuis 2010 nous avons fait defoon euh, président Macky Sall est au pouvoir créé nañu CPTRS coordination des professionnels des transports routiers du Sénégal koy en 2013 le ministre Mansour Elimane Kalmofi moo fi nekkoon koy taxawal le secrétaire général du ministère M. na le conseiller du président M. Pape Ndiaye la taxone CPTRS jóg moy dañu gis ni syndicat yi bari na ca ñu ni kon nak comme auto, acteur yee ko bokk dañu fexé regrouper acteur yëpp mu doon nag lu intelligent parce que chauffeur bi pour mu mën am li ministre bi wax foog oto dox ba auto dox lu dox te ñun dañu japp ni chauffeur ak transporteur ñoo bokk nday ak bay ndax transporteur yi fi gëna a tay ku ci jaarul ci am sa da waral sa bopp comme sa chauffeur bopp embaucher le chauffeur kon voix pour nekk un bon transporteur chauffeur booba man mi dem na ci ay réunion yo xamni loi doyen Mor Ndiaye ben, and nañ ci ak moom ci ministère du travail ak ay transporteurs pour ñuy défendre les intérêts des des des chauffeurs chauffeur ak transporteur mënuñu tàqali même bu ñu nekkee ci bir conseil national bi bu ñu génn ci biti ñoo bokk ndey ñoo bokk loi d'orientation bi mi wax ñu dégg nañ ko la ci tukkee néna moy conseil national des transports du Sénégal yaakaar naa ni ñun en 2013 ba ñuy wax observatoire national du transport au Sénégal boobaak léegi yàgg na parce que dañoo gisoon ni ministère bi dafa lompañ ci doxal transport na mu ko war a doxale ñu jàpp nag ni kon acteurs yi jotoon ñu état créé observatoire boobu pour ñun ñu nekk ca pour di mën di mottali jëfi ministère kon loolu moo jiitu loi d'orientation pour wane ni ñi ngi ci doon xalaat li mu waxee ci agence su sécurité routière dëgg mais na ngeen déglu ñun audio yi ñu def depuis 2013 ba léegi dañu massa wax ni dafa wara am un centre de formation ci bo waree nek chauffeur titulaire di dawal ay auto pour di yàpp ay nit kooku am permis de doyul dafa war boo paré nga jaar ci ben centre de formation professionnelle bo xamni bi mo lay defal un euh, un certificat d'aptitude pour wone ni chauffeur nga bu mën dawal auto yu oto transport lolu ban kay wax loi d'orientation bi judduwul woon depuis 2013 la ci ay transporteurs ñoo yëpp xalaat ko wax ko te dañoo waxoon ni intérêt wu chauffeur boobu am certificat d'aptitude bi mooy transport mooy chauffeur boobu képp ku koy embauché dafay am tous les euh, toutes les garanties yi emploi yi war a am mais gis nga problème bi nañ ko wax c'est le secteur du transport qui est déstructuré tey jii amul benn société de transport boo xam ni mën ngaa jënd oto bu bees liggéey fay ko parce que l'environnement ne s'y est pas dégg naa a wax renouvellement mais en 1960 le secteur du transport interurbain est musu ko renouveler secteur du poids lourd est musu ci nous loxo suñu demee ba état di ci dugal loxoom defe question de nous jox ñu dans l'environnement qu'est-ce qui ne va pas pour que nous puissions régler def euh, régler problème de ba pare transporteurs yi mën a liggéey am dara loolu le problème def nañ fi ay renouvellement gis nañu na mu mujjé légui nag ñom nee nañu danañu renouveler nañu def mais préalable yi bu fi nekkul je suis dans l'affirmatif affirmatif kenn du liggéey fay ci ñun xam nañu ne def ba auto ñaari société ñoo fi nekkoon Sogeca ak Sonaga ku ma sa bëgg auto ci ñom ngay dem société yooyu bu ñu démé bay tëj ci li ëpp ci seen liggéey ñu daan ko def ak ñun état li mu war a laaj mooy société yooyu lu tax ñu tëj lan moo doxatul ci système bu dee ci euh, problème mu transport poids lourd il faut nécessairement un bureau de Nous Nous créé au ministère un bureau de Quoi c'est créé na au conseil national des cha Mais euh, fret mais gis nañu ni ñaari organes même si nous bokkee li ñuy def ci jeexital bi bokkuñu jeexital ndax fait prix homologué la am mooy bu ministère fait prix plancher à prix plafond la am ci ñu bugg ñu waxaat ñu ngi ci di Nous pour un centre national pour la gestion du frais. waaye nag affaire baa ngi

nga euh, mu installé wu alors que Dakar Dem Dikk moom li mu war a def mooy daw ci biir Dakar mataliwul Dakar ñu di xëccoog ñun li nga xamante ni du ko matale moom mais day yàq suñu liggéey kon kooku jaaxal na mu BRT bi mi ngi ñëw day jënd ci transporteurs yi réduire leen au stade d'opérateur yóbbu leen ci ligne de rabattage yi ki yàq transport mooy état bi defal politique publique de transport yaakaar naa ni 2013 ba ñuy wax observatoire 2013 ba ñuy wax centre de formation

lolu bu fekkee limay wax amul président Mor ba jaay ben meun na genn entre nañu ba tay ministère du travail li am dal ba am moy division bi ñuy wax ci transporteur yi lolu état moko daan def état day xey suba bëgg def dara yow nga lank mu dal di gis ben waaye xawmu ma fu ñuy jaar koku genn di la contre ci télé yi ñoom bu ñu bëggee loolu jeex mën nañu koo jeex bu ñu nee euh un interlocuteur crédible daf may jaaxal bi ñu créé CATRS

on doit travailler dans la dignité dans la transparence Nous ngi tous nag di xaar bu conseil national l'agence, am agence bi am na buñ ñu woyee buñ ñu waxee dañu leen wax mais nañu gëm ni conseil national bi ñu gëm mooy bi du un département du ministère dafay nekk un conseil national indépendant et autonome mën di joxe avis ci ay proposition de loi yi ko jox waaye mën it avis ci lu mu bëgg ñu di def proposition de loi parce que fofu defe naa ni ñu fa pour nelaw dañ fa dem pour moo nek cadre bo xamni ni ñun acteur yi danañuy waxtaan ci suñu biir pour mën di proposer aussi autant ñom bu ñi proposer nañu gëm ni lay leen proposer loolu moy le conseil national qu'on va faire xamna ni nak dañuy bañ ñu nan transporteur yi ko waxoon waye japp naa ni turu observatoire lañu jël topando Maliens def conseil national mais mënoon nañ ko tudde observatoire rek ça revaloriserait la fonction des transporteurs

bi fi suñu Covid 19 ñëwé muy règlement 14 de l'UEMOA même ñi àndoon ak ñoom dañ leen bayyi ñëw ànd ak ñu kon loolu moy wone ni su amé dysfonctionnement ci ñoom la ñoom buñu ñu ñu and daañu and ñoom suñu bëggul ñu and daañu jéem a jaxase waaye ñun nañu am fulla ju day ne ku nangoo dem état di la jaxase ñu nit yow demal waye ñun nañu doyloo yàlla ca xeex-xeex bi te japp ni inshallah allahu rabbana danañ ci am ndam ndax bañuy ñuy wax observatoire en 2013 japp ñu ne woon lii dana bañuy wax

la góor góorgóorlu ba ba kenn wax loo xam ne dana jox ko ko jub morom jërëjëf mbokk yi loolu laa ñëwoon naa leen ko wax.